bis bi di bisam mbuur di jagleem tabaarakallahu mu amoon mébét ma yàlla dogal ngant ñëw nu nangul ko ngant loolu mu yabal nu pour nu ñëw ngeen xoole nu jëmmam nu waxe leen yéeneem ak kàddoom donte la du ñu mën a yegg ci dayoo ñu nuyu leen ci turam nuyu leen ci turu magam ja sëriñ Babacar sii منصور نيو لين تي تورو راكام سيرين ماودو موسى الحاج عبد العزيز دبا نيو جيلات باستيفو فودي داجي تودي كو حضر الجمعه بوبولير نيو ديكو كو ديفي تي استاد نيكو عبد الفتاح واخي ليغي تي نيو بري نياري دي نياولو ديفينوي تي استاد te fekk na stade bi dong moo mën a contenir mbooloo bu toll bu mbuur amoon beneen mbedd wala beneen ëtt wala beneen bu gën a yaatu stade kon foofa lañ koy defe waaye yàlla li mu dogal mooy mbuur stade bii la am muy estade bi gëna yaatu mën a dajale mbolo mi defe ko ci estade ni ko Abdul fatah waxee amul solo li am solo moy li ñuy def ndax togn yàlla la wala top yàlla yàlla digle majalisu zikr ñu di ko dundal wax ni uzkurullaha kasiran uzkurullaha kasiran وسبحوه بكرة وأصيلا أمر إلهي فعل الأمر لك إندي بموي ديغلي جولي فعل الأمر لك كونجيغي واي بمو ووتي دفني اذكروا الله كثيرا نانجين ذكر لبري بري وسبحوه بكرة وأصيلا بولين تامو ساسوني سوني ديلين كو في كل وقت وفي كل لحظة مو اندي جتاي سيني عبد العزيز ديلو سيوات كوتي خلو تي خولو طالبي بور ريك ني ديفي كو تي جاكا رافتنا ني زاويه رافتنا ني ديفي كو ات رافتنا ñu defe ko fu gëna a yaatoo nii nga xamante ni bu mbooloo mi dajee bu kenn ku nekk jàngee benn salaatul fatiha bu lim ba dajaloo bari lool pour Sénégal te salaatul fatiha jàng ko ci réew mi yaakaar naa ni du indi lu dul njariñu réew سني بروم يوكو ديغلي فحسبنا ذكر الصلاة الفاتح فيها الأمان لجميع الناس وفيها السلامة لكل السابح وفيها الأمان لجميع الناس كنا دفكو ورواي دفكو ورواي موم لا بروم واي وي واخ جيلل صلاه الفاتحه موي سوار واي بو منول ييغ تي ييوي يالا يا ن صلاه الفاتحه نيك سوار واي بور تك سا لوخو تي ييوي يالا يا بو منول ييغال سا بوب تي حضره الالهيه بكو نيك خيمه ما ييغ nga jël salatul fatiha mu nekk sa waruwaay bi lay yeggale ca xadaraat al ilahiya ya soo ko mënul boo mënulit nga def ko mu nekk sa waruwaay ci bépp yiw ak bépp ngëneel boo mën a yegg loolu mooy njariñu daje bu rëy bi ñu def ci ëtt bi nu tudde stade nga xamante ni xoli jullit yi fi daje kenn ku ci nekk tey

waratul mëna jur polémique tant lu baax la rekk te mu ngi jur njariñ dootul nekk objet de polémique dañuy seet njariñ li muy génne ak ñi mu koy génneel xolu njabooti ndaw yi muy ubbi feesal ko del ak tëbbu leeru yàlla subhaanahu wa taala ak leeru yonentam ba mu nekk njariñ Cheikh Abdoul Aziz ni mu ko waxe woon lii rekk la bëggoon ci benn waxtu njabootu tariqa bi daje di ay ndaw yi kese mag ña wéttal leen ndax fu ndaw tase mag da koy wéttali mag dafay dalal xelam mag daf koy sampal yàkkaaram ci li mu jëm ci ëllëg te mu nekk warteefam ci dund ñu dajaloo kalimatul musharrafa moom la yonent bi wax afdalu ما قلت أنا والنبيون من قبل كلمة مشرفة كادو جي أب صلى ما وحكو من محمد أك يننتي ما جيتو ما يكادو لا إله إلا الله تتكسان بنيو دوري جلي بنبي دور وظيفة يومية تفتلتي جلسة ذكر عصر يوم الجمعه yaakaar naa ni diggante bi wax leen ma ndax am na ku fi def lu yàlla tere amul sëriñ bi nee na kon bu ma dikkee naa leen ndokkeel ci turam naa leen encouragé ci yéenem naa leen wax ni hakaza hakaza fa illa falaala mu wóor ni fii ci Sénégal tariqa bii di tariqa al ahmadiya al muhammadiya ku mu ko joxul kala ko jox maaliga ko jox loolu xaasam la ci réew mi xam ngeen ni luy lor réew mi du jóge ci xadaram luy lor réew mi du jóge ci ay tegtalam luy lor réew mi du jóge ci njàngale nañu ko xam léegi dafa am benn journaliste bu ñëw laaj waaw yéen a ngi jëm ci waaw poroxaan jeeg euh, ziar général jeeg waaw ñu doon laaj est-ce que laajul ngeen fomm ko ma bu ngeen ko fommee virus bi dal Sénégal yëpp an ngeen koy fomm virus bi dana dal Sénégal yëpp bu ngeen ko bàyyee nag ca bis ba ñu ziar mag ñi déer leen sunu jaaxle bu ñu fa jógee dana dellu gannaaw di dellu gannaaw ba topp Afrique ba topp adduna bi man Moustapha maa leen ko wax kon jarul tiitangi genn gi amul ku fi teew te sa xel demu ci ndax tey moo nekk objet waxtaan yépp moo nekk objet daje yëpp dem na sax ba daje yu bari fomm nañ ko ragal-ragal yu ñu foog ni mën naa law waaye ma wax leen ko fii ci Sénégal du fi law mukk du fi law ah danañ ko nangu nag ndax yabalu yàlla la yabalu yàlla la wala nabluwannakum bi shay'in min al xawf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون دنا أمسا ما يبل أكتيت فونك tiit defe naa dana am yenn saa yi nga gis ñi faral di yëngatu ci ndakaaru koo ñëw bu ma fa gëjee semaine bu ma dikkee ku ma dajeel daf may wax son stress ni ma man daal xaw ma lan la mais dama jaaxle rek tiitange rek tiitange goo xamante ni yow xamuloo li la jaaxal lan la xamuloo lu la tiital te tiitange googu day am yàlla ko digle saaba saa nag yabalu yàlla ñëw pour nu delluwaat ci moom moo tax yenn say xiif la koy jaare ñu naan pénurie am na kenn mënta am ceeb kenn mënta am dëwlin amoon na fi jamono sunu mbokki chinois yi di wër di ko jënd ba kenn amatul loo dunde pénurie xew wa naqsin min al amwal wal anfus dee di bari jamono bi suba soo xëyee ñu tàgge la fukk yoo xam wa samaraat taw wara ñëw nawet mën a matale ndax yàlla ku gën a mën a matale waaye mu ñëw nawet gàtt nga defar gerte ba yeggal foog di gerte ga dana am poids mu dugal ci la mu cay dugal mu woyof lool ba boo ko jaayee doo ci am sax loo mën a dunde yooyu yëpp mook sunu ngëm-ngëmu diine ñoo ànd tax nag yenn saay jataay yu mel ni dana delloowaat sampaat yaakaaru jaam jëmale ko ci boroomam ak barke intermédiaire ya dox digganteem ak boroomam sunu proximité rekk lañ doon jéem ak sunu boroom ci tàkkusaanu tey ci sunu tegtalu sëriñ ñaan yàlla ku fi teew ku ne boo fi jógee yàlla na la yàlla gunge ak yiwam ku fi indiwaale aajo bu ne aajo ba yàlla na ko yàlla saafara ku fi indi njàqare njàqare ba yàlla na la ko tekkil jaaxle jaaxle yi nu am ak yëpp yàlla na yàlla delloo silnu mu nekk beneen climat d'émergence et de développement boo xamante ni dana nu may sunu réew nu mën a toog toogaay bu dal toogaayu jàmm toogaayu euh, liggéey bu mën a delloo réew mi ci kawe kawe bi ñu ko séntul nun ñépp rawatina boroom réew loolu fu nu toll nañu koy ñaan te nañu bëril ñaan gis nga xilaqu zikri yi su bëree ci réew mi su yaatoo mën naa wax ni Sénégal musiba dana fi yéex am nañ ko bari rek ndax loolooy jariñam fiha assalaamatu li kulli sabih wa fiha al aman li an-nas kon nak warqa biha warqa biha maraqi al abrari warqa biha maraqi al ubbaadi warqa biha maraqi al isaadi so pare nga jàng sa limu salaatul fatiha دفكو هدية لبنت المصطفى العدناني أو هدية لمحمد المختار أو هدية لأحمد التيجاني سنسري يالنا نوكو يالا فايل نيجي سانت نيب نيجي بالو أق نيب نيجي ندوكيل نيب